ilaha illa allah faal Mustafa la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim barke maam Serigne Fall bokki talibe yi ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen siyaare bu baax di jiital ci nuyu bi ak siyaare bi itam sëñ di Fall mu sëñ Modou Mbenda mi fi nekkal maam Sénaay Fall tey ñaan suñ borom yàlla na fi gën a yàggal baax te wéral ko li mu naan lépp ngir bëgg koo liggéeyal maam Sénaay mu def ko ni mu ko soobee ñaan ko ak moom li barakati maam Sénaay Fall ba mu dina ñu ngi sàkku mbitteem baax nag di ñaan sëñ Tuubaa Sëñ Muntaxaa suñ borom yàggal seen dund wéral ko itam ba li mu liggéeyal sëñ Tuubaa lépp mu def ko ni mu ko soobee tànn ko njëriñ Sëriñ Tuubaa gépp nag ñu ngi leen nuyu baax ci kaddu sëñ maam seex Fall moom Cheikh Sërif Assane moom maam Serañ Fall di sëñ maam seex Fall Sikurulahi ñu ñëw fii nag ci njootug maam Serañ Fall gii ak kuréel yi fi daje ñu yëkkati kàddoom nag jëm ci bis boo xam ne dafa nekk ci sunu kanam war a dëppook alxames bii di ñëw. di bisub sunna de boo xam ne sëñ bi dafa digle ñu dajee fa bokkook ñoom àndandook ñoom itam nekk ci tur yàlla wa bis boobu nag moo tax ñu dajee fi tey di ko soññee sëriñ bi di wax ne jot na ndigal nag lu bàyyi ko ci sëñ Tuubaa Sëñ Muntaxaa ñëw ci sëñ Fall mu sëñ jëm ci ñëw toog nga xam ne ñoo amee tur yàlla di ko yëkkati ñooñu nag sëriñ baa ngi leen di xamal ne liggéey bi ni ñu ko daan defee itam agsi nañ ci waxtoom te ndigal nag lu mujj ëpp doole sëriñ bi di woo nag mboolem tuddkati yàlla yi fu mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew nag ñu xam ne liggéey bi jaaroon nañ ci def ko defati ko waaye dara soppikuwu ci nañ ko daan defee rek noonu lañu koy defee kon nag fu tuddkati yàlla nekk na xam ne sëriñ bi jot na ndigal nag ci woote tur yàlla wi di la woo ci waxtu la daa woo nag mboolem ñi nga xam ñoo ngang tur yàlla wi nag ñoom ñëpp sëñ baa ngi leen xamal ne liggéey bi nañ ko daan defee dara soppikuut fee ñu koy defee rek lañ leen bëgg a leeral leen itam barab ba na mu demee moo dina noo jox ndigal ñu daje ci penku jumaa ji daje fa tudd fa yàlla suñ sëlmalee fajar lañ koy yëkkati itam ba six ci ngoon bu sëñ bi joxee ndigal ñu doog koo ñaan sëñ bi bëggoon nag mboolem tuddkat yàlla yëpp ku ne ci biir dëkk bi na nga fajaru wutal ci penku jumaa ja koo xam ne nekk ci biir dëkk bi itam na nga faante ci dëkk bi ànd ak ñun ci liggéey bii nga xam ne moom la nu Cheikh Fall digal te jëlee ko Sëñ Tuubaa ci biir loolu itam fa nga xam ne fa lañ koy defee la ca soppiku lu tuuti la moo dina daaw bi ñu koy def tam ku ne xam ne ne bi ndigal lagsee ñu woote tam ña nga nekkoon ca warma bi nga xam ne fi nga xam fi lañ jullee xiit ñu nekkoon fa ñuy ñuy dëbbee ren ji itam sëñ bi dafa wax ne ca seen penku ba foofa la ñuy nekk féete fa tam di tudd yàlla waaye dara soppiku ci waxtu yi soo dee ci penku ba nag fu ñuy tuddee yàlla ñuy dëbbee ñooy nekk ci kanam jullukaayu xiit bi dañ fa def baas boo xam ne ñuy dëbbee ñëpp dañ mën a dugg foofa ne fa di dëbbe waaye mboolem ñuy tontu nag jox na leen digal ci ni daa tontoo daaw moo jàpp ci jullikaay bi wër fi nga xam ne fi la tey taxaw ba dellusiwaat fekkaat na jullikaay bi foofu lañ ko bu feesee nag dañuy jàpp nag wër kër sañ Baara Mbàkke gi wër ko jàpp si waat ci kuréel bu mag bi def ko benn kuréel boo xam ne génn buum lay doon benn tont lay doon loola nag miin nañ ko def nañ ko defati ko defati ko soññe bi mooy rek kenn ko ne xam la la ca war ak xam fa nga ca toll mbooleem koo xam ne itam yaa ngi tudd yàlla nag te bokk ci bopp kuréel di ko jiite heure bii nu joxe la ca topp rek ñoom ñëpp nan dajee ci kanam sëriñ bi ku ci nekk waxtu wa nga ca war a am wala fa nga fa nga war a àndal dalee ko sëñ bi dina la ko wax nga joxe waxtu ba mu jeex waaye lépp solo rek tépp solo mooy mbooleem ku di bàyyi faal tey tudd yàlla sëñ bi bëggoon na bu ñu nodd fajar na fekk nga taxaw bali sëñ bëgg ñu defal ko ko mën naa yomb nag ci murit buy jëfe ndigal ndax ndigal mittiwut ñàkk a jëfe ndigal moo mitti su ko defee ñëpp ñu bàyyi ko xel te xam ko itam la ma leen waxoon itam maa ko xat ba tey nañ xam ne ci nawet lan nekk ku ko waxtu tudd am ndox te fokk nag li Sëñ Tuubaa bëgg faaw Cheikh Fall dina ko def ñun ñoom sagalee ñu war ko def nag bu ñuy jóg nañ jóganu jógan woo xam ne ndox mi bëri bëri dana jàpp ne ndox mi daa sécurité waaye yàqalun dara moom ci li ñuy def ñoo ngi mooma yem rek jaam ñun ba kenn ko da ko waaj ba la yàqal dara doo génn tam diwtuwaat dara sëñ baa ngi ko bàyyiloo xel ñëpp nag di bàyyiloo xel tam mboolem kuy ñëw nga waaj wàccaa yoo xam ne ku la gis dina xam ne kii di ñëw di ab Faal la moom soo si yegg see nga jëf-jëfi bay Faal boo toogin nga toog tooganu Baay Faal loolu nag ki melaw yi ak colin yi ci loolu la aju kenn ko na ko bàyyi xel bàyyi xel tam na ki ñuy liggéeyloo mu ngi ñu gis fu ñu toll te liggéey bi rek moo tax nu woonu ñu ngi ñu koy seere tam ñu ngi toog suñu biir di njawat ak maam serafal gi nga xam ne bu ñëpp noonu la def baax na te ñoom néewut baax na day mel ni ñun amagun ci ndam bu ñëpp noonu baaxul te njawatu serafal gi na baax na ñun am na ndam ba noppi ndax wutunu kenn serafal rek la ñu wut waaye moom mi ñu wut ñun ñëpp bokk xam ne wutul ko du sëñ Tuubaa kon nag ñëpp nañ xam ne daf noo sagalee ndigal li ngir ñu di ko joxe di ko def waaye bëgg Sëñ Tuubaa nag moom su ko xasee yëkkati faaw am na ca saasa yow men sagalee nag bokk ci ña def te war koo jëmmal na nga mel melokaan woo xam ne jëmmi ku maam Serigne Fall yónni di ko liggéeyloo ci kanam Sëñ Tuubaa noonu la a mel kenn ko yaay natt sa bopp nag ndax sëñ foo ko toll mu toll la fa kon sëñ baa ngi woo ñëpp nag te den saa di ñaan sa borom yóbbu ñu fa ak nag dañ am ci ndam amante ci ay ndam sa borom may ni itam tawfeex ju ni ni sëñ bi waxee ne am naa leen bëgg ci bii ñu génn yàlla na ko waxaat ci bii ne am naa ci li ci bëggoon te defal ko ko barakati maam seer ba mu dina jërë ngeen jëfati aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashaabihi wa sallama tasliman asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit mbokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara ci pàkk bu tedd bii di pàkkub Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbend mi tooge jotaayub sunu maam Cheikh Ibrahima Fall euh, di leen xamal ni lu jiitu ñuy tàbbal suñuy kàddu noo ngi sàkku ci murit yëpp nu ñaanalal ñu sëriñ Muntaxa Mbakke mi nga xam ne moo tooge jotaayub Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba suñu borom sàmmal nu ko te aar ko ba yéeneem ci toolub sëriñ Touba bi mu mën koo bay ni mu ko bëggee di sàkku it ñu jëmale kàddu yooyu ci sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda mi toog ci jotaayub sëriñ maam maam Cheikh Ibrahima Fall noo ngi sàkku ci bépp murit boo xam ne janloo nga ak image bi nga ñaanalal ñu ko sunu borom yàggal ko fi te may ko ak wér ba li mu yéene ci toolu maam Cheikh Fall bi mu mën koo bay ba mu set wecc noonu tamit lan koy ñaanale mboolem ñu toog ci bunt kër doomi sëriñ Touba waaye tamit mboolem ñi nga xam ni ñooy xulafa yi nga xam ne ñoo toog ci bunt kër doomi maam Cheikh Ibrahima Fall yi noo ngi ñaan sunu borom sàmm leen te aar leen ba liggéey bi nga xam ne moom la fi seen maam ju baax ji bàyyi woon ñu man koo defee ni nga xam ni mooy nanu ko bëggee su ko defee bu loolu jàllee nag bu ngeen gisee jotaay bi xam ni jotaay la boo xam ni ndigal la lu bàyyi koo ci Cheikh Mamadul Muntaxa wàcc ci jëwrinam ji sëñ di Fall moom sëñ Modou Mbenda muy loo xam ne nag ni ko sëñ Basiiru mi waxee jiitu léegi rek liggéey la boo xam ni sëriñ bi santoon nañu ko santatiñu ko bërki démb rek alxemes ji ñu génn lañu génn ci bis boobu nga xam ni bésub tudd yàlla la woon bu nu sëriñ bi doon liggéeyloo te jaaroon ko ci suñu am di mi nga xam ne moo fi maam Cheikh Rafal loolee nag moom la yeesalaat waxoon ne bu bis bi ñu ko doon def dellusee daf cee woote bisub xasiida bisub xasiida boobee nag nee na maam ñu lënkale ko ak bisub sikkurulaahi muy tudd yàlla ñu àndandoo ko kenn yii woote ci jëf ci ab liggéey matale na sëkk ndax sëriñ Touba mi nga xam ni mooy borom xasida yi nee na karaamati xattu yet yi nee na man xat Khadim samay karaama mooy sama mbindum loxo mi kenn ku ne xam na ni wax nañ ne am na benn bis am soxna soo xam dafa noppalu ci njaarim sëriñ bi wax ne nañu ko waajal te denc ko ñu di ko waajal càngaay li xaw a jafe ba mujj mu soññee ne nañ ko far denc noonu nañu bañ ko dencee ba noppi bi ñu dellusee dafa wax ne xanaa loolu de jaaxal na leen nee na ñu ne ko moom de mbàkke jaaxal nañu mu ne moom de dafa am doomam moom soxna soo su faatu dafa am doomam ju mokkal xasiid ak midaad yi waa xalaam yi looloo tax malaayikatu rahmaan yi nga xam ne dañ koo yàkkamtee jot ci moom ba teral ko ci ndigalu suñu borom di ko soññee loolu bëgg cee jot looloo tax ma mujj ne na ngeen ko denc noonu te waxul ne soxna sa moo ko denc moo moo ko mokkal waaye dañuy doomam wax nañu tam dégg naa ci sëriñ Cheikh saar moom sëñ Mbay Sarr mu ne xasiday sëriñ Tuubaa yii day waxuma la ku ko jàng waaye yow mi ko jàngut sax mënoo ko jàng waaye nga dajale leen def leen ci waxande di leen pomp laj ko laj di leen toppatoo nee na boo faatoo bañ waajal sa bàmmeel te dencaguñ la nee na xasida yooyu ñoo fay dajaloo mel ni jëmm yu bokk ndey ak baay te soppante di la fa nekk ba nga ñëw nee ñu di la wéttali di la laaj loo bëgg ñu di la ko defal ba keroog saa di taxaw kon xasiday Sëriñ Tuubaa yi rek maanaam kéemaan a ngi ci goo xam ni lu ci waaye def rek doyut turu yàlla wi nga xam nag moom la sëriñ bi wax ne moom lañ koy booleel day loo xam ni moom mooy lépp ndax sëriñ tubaa mi ngi koy wax naan euh, waa am na fu mu wax ne amma dawaamu shikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksaru nee na saxal sikar lu ab murid di baril nee na sax saxal sikar moom mooy la ca gën daal ne xat xultu zalika bila israar yi wala ubali bi sawil inkaar yi mu ne loolu man maa ko wax man cheikhul xadim te maanaam moytuwuma ci faaliwuma ci koo xam ne daa jug di ma weddi teg ce fa kullu man sa'alani fali jawaab xabla wala tujaadiloo ahlul kitab nee na ku ñëw tamit di ma laaj loolu fu ma ko teg nee na am naa fu ma lay tontu mooy la nga xam ne ma nga ca xabla wala tujaadiloo ahlul kitab mooy wala zikrullahi akbaru dellu wax ne wa xultu wa xultu man taraka zikrallaahi li zikri xayrihi fa xumrullaahi nee neena ana nan la nit ki di bàyyee tudd yàlla di tudd keneen koo xam ne mu wute naag sunu borom fa kayfa yansa aw yu xaafilul wara sikar allazi xalaqahum wa sawwara nee na nan la nit ki maanaam di sàggane ci tudd suñu borom mi nga xam ne mooy mooy ki ko bind maanam di ko di ko di ko sàggane di di di di di nekk ci leneen lu wute ak lool kon tudd yàlla dafay loo xamante ni bii foo ko takk rek dayo ba maam mën weesu na ko moo tax mu wax ne wa annahu bidayatul wilaya wa tarkuha nihayatul xawaaya nee na maanaam da tàmbalikaayo ak wilaya mooy tudd yàlla ne na nag wàcc ko mooy daytaluk mbewte waaw moo tax mu ne jaxalana allahu min allazina daamu bi fikratin alayhina noo ngi ñaan ci suñu borom mu boole ci ñi nga xam ne dañuy saxal di ko xalaat ak di ko tudd moom moom suñu borom kon loolee nag mooy li nga xam ne ci la Cheikh Mouhamadul Mountakha jaar joggi ci ba bëgg ñoo dimbali dimbali réew mépp loolee nag muy loo xam ne da koo jaar ci muritam bu yi nga xam ne mooy sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda mu bëgg ñu àndandoo ak bisub xasida boobu defe ko ni ko sëñ Bassirou Niass mi waxe tàmbali ko ci 6 heures du matin ba 6 heures ci ci ngoon ñi ngi ciy woo mboolem koo xamante ni bii danga ngaa yaakaar maam Cheikh Ibra Fall wala mboolem koo xamante ni bii da ngaa bëgg am ngërëmul Cheikh Ibra Fall képp koo xam ne daal mbégte maam Cheikh Ibra Fall sa sa mbégte la bis bii na nga xam ne na nga ñëw ñu àndandoo ci tudd yàlla wow àndandoo ko ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi teg seen loxo ci wàllu xasida yi ñu fas koo ne liggéeyee la sëriñ bi ni nga xam noonu la ko bëgge la dolli ko nag mooy Jazbul Murid di sët di daayira bi xam ne moo lënkale mbooleem sëti maam Cheikh Ibra yi ñoom la sëriñ bi teg seen loxo ci wàllu taxawu liggéey boobu ci wàllu organisation bi ci li jëm ci wàllu Baay Faal yi loolee nag mooy mooy mooy banqaas bi nga xam ni amul genn kër gu des ci kër maam Cheikh Ibra Fall gudut ne yaa ngi bokk ci liggéey boobu ni nga xam nag noonu la ñu ànde woon ci bis bi ñu génn nañu waajaat te takkuwaat te xam ne am murit du wàcc du noppalu ñu fas yéenewaat li sëriñ bi bëgg ci bis boobu ñu taxawaat ci temm ba nga xam ne ngërëm li ñu ci jële woon ci bi ñu ca noppee danañu fekkaat ci lii ci biir loolu nag ñu fasaat ci rek la sëriñ bi waxoon ñaan suñu borom mu def ci réew mi jàmm te may ñu nawet boo xam ne nawet bu barkeel lay doon ak ndox moo xam ndoxum jàmm la loolu daal mooy li nga xam ni moom la ñu woon danañ ko rotal sëriñ maam Cheikh euh, mum Baye Sërif Assane mi ngi nii toog di ki nga xam ne moom tamit waa baatu waatu baatu laa ilaha illa boobu moom la sëriñ bi teg loxoom ci mu saytu ko ànd kook mboolem tuddkatu yàlla yi nañu xam ne daal lii ñu sëriñ bi di faggul moo xam na mu toll ba tax mu dëxañ ko ci biir liggéey bi kon nañu taxaw temm te fas yéene lool dara bañ ñu cee mooy ci biir lool nag luñ ciy yëngu nañ ci fasaaleel ñaari ñii muy Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fii Serigne Touba ak Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbend suñu borom gën leen fee yàgg bàyyi leen fi ba seen liggéey bi ñu defe ko nem leen soobee ñi foofu suñu kaddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ci woo ñëpp nag ni ko bi waxe woon daal man ci togg ay xéewal na def indi ko lu waay a indi ci loo xam luy tax bis bi kenn ku ne fa nga ca mën a féete xam nga a wa rahmatullahi taala wa la ilaha illallah la ilaha illallah